asalaamaaleykum askan bi maa ngi leen ziyaare waat di leen nuyu di leen bége di leen war waar tey ma génnaat feneen fu bees si Guest Star ma ñëw fii CFA su ma nee CFA sama xol dafay sedd damay kontaan ndax fii laa juddoo yaroo fi Seydou Meng ak Jëliya ngi ñëw sama maam alaaji Meng mooy sama papa tey nag ma ñëw seet si benn star boo xamante ni tey ñëpp xam nañ ko si laamu nee naa leen Guest Star ba léegi si biir Diassigui TV ma ñëw seet si ki ñu naan Alioune Seye 2 fa moom sama star boobu naan leen leen ba léegi rek maa ngi nii biir CFA su ma nee biir CFA damay kontaan ak guest star ak naanaan boo xamante ne nee naa leen guest star la star nag tey laa seet si boo leen déggee star nag mbër bu mag a mag a mag muy Alioune Seye 2 ku ko xamul dégg ngeen ko yéeneen ko Alioune Seye si loo ne. ci la ma daan nekk rek bëgg lu baax bañ la bon. Alioune Seye yow di nga nuyoo nuyoo coronavirus. nuyoo coronavirus nan mooy ni. <laughs> naa len gëstu star rek and ànd seeg gi TV ba legui rek ma ngi fi CFA koñu keur aline seyde fassene jakarlo yéene bi aline Seye di la ziare di la nuyuwaat di la taragal. pa Sarata ma ngi lay ziar di la bëggee ah di la jox sa waccu way di ziar mbokku internet yep ha ah, di ziar kep ko xamanteni supporté aline Alioune numéro 2 rek ma ngi lay ziar di santaat yalla bu baax di julli si yonent bi sant sama ñaari waju di sant sama serigne seigne babakar mbake mu kabburoo borom daal salaam gam yaak yàgg di ñaan seigne Cheikh jëm faal mu yàgg fi loolu te wér sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér barke Seydina Mohamed waaw léegi ba léegi rek si Aline Seye Deur Aline Seye Deur tay ma ñëw fekk la samit koñ si Guest Star ñëw seet si la tey bu ma ñëwee sa koñ nan la la def seet si la waaw du def lenn lu ci am contentement wax dëgg yàlla ndax kër yi ngeen romb bëri nañ mbëri si Sénégal yi bëri nañ ngeen romb fépp xam nga ñëw fii luñ def lu dul contente waaw di am contentement bu baax a baax a baax léegi rek nee naa la Alioune Seye ba léegi dama ñëw seet si la bëgg xam kan mooy Alioune Seye ak Alioune lan moo ko dugal si làmb ak lan moo ko tax mu jël léppam rek visé ko si làmb di dund làmb. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek mooy li ñuy wax dessin moom xam nga kenn mënu koo mooy suñu borom moom su la sàkkee ne ci lii moom alaakulal di nga si jaar di nga si jaar xam nga làmb ji moom dañ koo doon xam nga juddu fekk sunu per Balla Gaye père Alioune Seye doon tëgg fi mbapat xam ñu nekk ci di seetaani di dem di bërintu yàlla dogal suñu koñ fii nii tamit ñuy tëgg ñu tëgg mbapat ñu nekk ci di bërintu di bërintu ba yàlla dogal ñu nekk mbër ñu siy sant yàlla bu baax a baax waaw waaw si sant yàlla. yàlla bu baax ngeen siy bërintu di si fowantu ba tey jii mooy mag ñu baax ñu ngi fi tudd te ñu nekk si làmb gi loolu noonu moo la dugg si làmb ba pare nga dond ko mais Alioune Seye dafa mel ne yow écrit waa la nga nekk. tey ji yow ak yaa écrit wàll ay ñoom Lac de Guiers numéro 2 ñoom Papa Boy Djiné ñoom Macha ñoom Dundu tey lan ngeen nekk euh, si euh, biir euh, kii bi ah, si fi ngeen nekk noonu muy biir waalo ak ban kii secret ngeen am seen biir boo xamante ne tey jii juboo ngeen juboo boo xamante ne da ngeen demalante ak di dikkalante. waa loolu sant yàlla rek xam nit moom bu ñu bokkee benn affaire bu ñu bëgg xam nga c'est normal ñu bokk ndey bokk baay ndax dërëm bi génnul gaal gi. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku ci xewle sa borom dalay lay yéene ndam yéene la jàmm taxawu la jàppale muy entraînement yi suba ngoon guddeeg bëccëg xam nga jàppale la taxawu la ba sunu borom ma defal la ndam te noonu la ñu àndee écrit waalo gi géej waag yëpp noonu la ñu àndee bokk ndey bokk bàyyi muy xam nga muy mbër mu nag ba mbër mu ndaw ñëpp rek séq jàmm lañ def waaw mooy ñi nga tudd ñii ñëpp rek xam nga boo limee da ngay juum waaw ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi c'est parce que ñoo bokk géejawaay bi rawatina bokk écrit waalo bi kon c'est normal ñu bokk nday bokk baay. damaa gisoon bi yéen mbër yi mbëru géejawaay ñu woote woon ay ñoom Balla Gaye ay ñoom guy gi ay ñoom Lac degee Guiers Alioune ngeen waxoon na ne da ngeen di bennoo est bennoo boobu ngeen doon wax yéen ngi si ba léegi wala parce que yéen a ngi demal yaa ngi demalanteeg Balla Gaye wala Lac wala euh, guy gi wala nu mu fa demee ba léegi bennoo boobu est-ce mi ngi dox ba léegi wala doxul. si bennoo gi mi ngi dox ba léegi 100 pour cent bi ñu ñoo ko fu njëkkee san pour cent bi képp kuy def 100 pour cent rek ci géej waa nga ko nga ko nga ko gisee. kon loolu mu ngi mu ngi dox ba léegi ba xam nga ñi nga xamante ñu ngi mujjee génn sax am na beneen 100 pour cent bu nekkaat ci suuf mooy nouvelle génération bi kon xam nga bu fekkee ne ñu ci kaw doxaluñu woon doxul bu baax kon ñooñu duñu ñëw ba ba topp ci loolu kon xam nga ànd bi rafet na daal ñu ngi dem lente di déggante lente di séq jàmm waa di séq jàmm waaw. waaye ba léegi rek ñu nekk ci waxtaan rek nee leen maa ngi nii gëstu star la seet si star bu nga xamante ni mooy Alioune Seye 2 Alioune Seye bu ma jógee loolu temps yee passé gis naa nga préparé fi combat bu rëy nga ko nga préparé fi combat bu rëy mu nekk combat bu rëy ndax nee nañ mbër yi dañoo sonn dañuy yàq xaalis bu bëri tey jii ngeen dem ba stade bëre bi yàqu si affaire ay këppante garab histoire léegi loolu noonu tey jii loolu lan nga ko dundee woon. waaw dund nañ ko metti na mais nag sant yàlla rek jàmm moom li ngay bëgg yàlla dogal day ute. xëy na li ñu waroon def yëpp def nañ ko sonn nañ ci dem nañ ci entraînement fay nañ sunu xaalis def nañ ci lépp lépp loo xamante ni combat da koy laaj rek def nañ ko ci ñëw ba ci jour ba mu demee noonu dañuy xam ne noonu la suñu borom namoon rek kenn mënu ci dara ba gannaaw woon noonu lay demee ab jaam moom day nangu dogal boo defee li nga war a def ba pare li ci des da nga koy bàyyi ci loxo yàlla comme suñu borom noonu la ko bëggee woon dañ ci ànd ak xol sedd gu di ci sant yàlla bu ndax bëggee ko woon noonu xam ko entraînement 3 mois 4 mois ñëw ba ci jour ba bëri rek nga bëggoon mais soo ñëwee boobu si biir xam nga seytaane ñëw suñu borom nammeeku ko noonu dañuy dañuy nangu ndogal ni te xam ne noonu noonoo gën daal noonoo gën waaw. seytaane ñëw na suñu borom nangu ñu naan suñu borom day indaale ndogalam yow miy jaam yow miy bëre nga nangu ndogal ge. mais ndogal tamit nee nañ euh, parents yi da gis doo xamante ne tey dëgg am na fii ñu ne dëgg amul parce que ñun dañu nekk si télé yi nekk fépp di dem tey ji gis nañ ne Sénégal yëpp dañ ne Alioune ki mu doon bëreel moo ko tooñ parce que ki nga ñëw këpp gàllaaj bi kooku bëreewul mais tamit dañu dégg na ne CNG dala si aj teg la si ay daan yu bëri te nee nañ yàq nga sa combat lool loolu noonu ak CNG ba xam war nañoo war a mën a dundee woon ak yow noonu parce que li nga ñàkk yaa ko xam waaw métti ndax wax dëgg yàlla xam nga préparer sa combat li may wax ay 4 mois xaw ma ñëw bi ci jour ba xam nga koo xamante ni sequt ak yow dara ñëw sotti la benn affaire ba mu indi coow xam ba affaire demee noonu métti na ndax man su ma sañoon du muy bëre daan wala ñu daan ma ndax c'est pas la première fois laay bëre ci daan wala ñu may daan mais am na si loo xamante ni xam nga bokkul ci làmb mooy tooñ sax laa bokkul sax ci doomu aadama waxtu malaak biir làmb mu demee noonu nag waa CNG def li ñuy def xam nga def li ñuy def wax dëgg yàlla metti na finance sa xaas yëpp nga ñëw ñu sanctionné la 6 mois ba pare sa reliquat ba léegi wax waxaguñ ci dara xam nga loolu tamit metti na. mais nag léegi sa reliquat waxaguñ ci dara. waaw ba léegi waxaguñ ci dara ba léegi waxaguñ ci dara mais war nañ cee wax dara nag ndax sama xaalis la maa ko liggéey mu lew ma doom entraînement def lépp waaw daf maa lew quoi waaw. waa nee naa leen gëstu star rek. Alioune Seye 2 dégg ngeen waa CNG nee na ba léegi reliquat wam waxoo leen ko si dara te dafa préparé combat wam combat wam yàqu te nee na su sañoon day bëre mu daan wala ñu daan ko ndax defet ak victoire ñoo ànd kon waa CNG déglu leen Alioune Seye tamit ngeen dimbali ko ndax nee na combat mooy yow du combat moom moo lay mën a yóbbu fu ne mais soo toogee bëre woo da ngay xaar yeneen xale yaa ngi ñëw seen kaw. waaw lam moom ñu naan lu maas dabante la. boo toogee bëre rek. ni ci souf dañuy ñëw di dan di daan di la xam di la fekk si so tawee la yag bëré wara dañ lay rombu lam mom non la baxo mais ñun mom ñi ngi nekk ci luñu wara nekk wax deug yalla d'entraînement suba ngoon guddeeg bëccëg képp koo xam ne làmb boole nañu rek ñu bëré mom waaw. légi rek aline sey ñu jógee ci lolu ñu dugg ci lo xamante tay Sénégal ñëpp ang koy joy muy mbas mi fi dugg muy coronavirus bi nga xamante tejna lepp mais coronavirus bi ba mu fi ak légui yeen bari no leen koy dundé waaw di ko dundee comme ni ko àdduna yëpp dundee ni ko Sénégal yëpp dundee rek te di ñaan yàlla xam sunu borom mi nga xam ne moom kàttan tey dimbali jaamam yàlla nañ sunu borom dimbali kàttan nañu ba mbas mi jóge fi wax dëgg yàlla ndax lépp taxaw na te jaam amul lu dul ñaan waaw comme ñaan lañ am nag moom nañuy profité si ñaani rek sunu borom mën na lépp ñu ñaan bañ a taay sunu borom dindi fi mbas mi balaa yàgg ndax affaire yi metti na du si mba làmb ji dong la taxawee ci euh, domaine yëpp la taxawee. kon nak dañuy ñaan suñu borom mi nga xamanteni mom dara jéxalu dara mu may ñu katan rek ba jëlé fi mbass mi ñu nekkaat ca lañ nekkoon waaw. mais aline sey tamit yow bi nga toogee depuis bo ba légui si combat bi gisoo kenn ku la fëgg ci ñoo wax la pour nga bëré kenn. si ma ngi gars ñu ngi ñëw gaay ñu ngi may wax ay combat am promoteur mom dofuñu jine japp leen wax dëgg yalla kuy kuy xamne ko xamne bu ñëwé stade day tous mu neex bëré mu neex indi supporter ñom mom lañuy wër kon sen normal ñu sét ci ma waaw wax dëgg yàlla te loolu yëpp daje na ci man waaw catuwuma sama bopp nag waaw. <laughs> catuwoo sa bopp waaw ñëpp a ngi lay seet mais tamit soo déggee ñu ne reliquat bi nga xamante ne tey jii mu ngi nekk CNG te CNG aj boobu ñu la ajoon ñu doon dégg est ce que suñ la aj su fekkee ne ni bàyyiwuñu aj boobu ñoo ñëw di la seet est ce que di nga mën dem bëri ji. non si balaa fee saison bi day fekk kii bi sanction bi jeex ndax boo xoolee ma bëri léegi presque 4 mois te 6 mois lañ maaj. waaw léegi day fekk saison bu ubbee day day fekk mu mën a bëre quoi waaw moo waxtaanee gars yi bu ñu jubóowee rek am benn problème ah. benn problème mais combat moom metti na bëre metti na mais Alioune Seye est-ce que yow tey jii nii yow ñaan nga yàlla nga dund tey sa doom li ngay daj si combat di daj di ko daj si bëre ñaan nga yàlla jur tey doom mu jug ñëw di bëre. wax dëgg yàlla ñaan ma ko yàlla nag yàlla nag moom moo xam lu muy def mën ngaa ñëw jur sa doom sax mu raw la ni nga bëggee woon mu raw ko xam nga triplé ko. mais wax deug yalla nit mom sañ nay bëgg di ñaan mais loolu mom bëgguma ko mom sama doom nekk ma dafa metti lamb dafa metti xam nga lamb dafa metti dal foko foko tak rek wessu nako waaw dafa metti dal ak yi si yi si nekk si biir yépp entraînement doto am vie xam nga bo doxé ni sax ñu né wa mbeur lutax tax muy def li xam nga dila dafa metti dal dafa metti do mom sa bop te ni dafa baax nga mom sa bop mais mbeur mom moo moo sa bop waaw met xam nga bëgguma suma doom daal nekk mbër waaw boo bëggee dégg-dégg waaw waaw. tey jii Alioune Seye loo bëgg a wax ak lu làmb ñi lay ñi lay déglu ak lu nga xamante ne tey jii daf la metti ci combat bi ak yow bi nga daree dund làmb ba fii ñu ya toll nii lan moo la gën a métti métti métti loo xamante ne tey jii soo ko fàttalikoo ci koom ci bëre rek da nga dootoo bëggati bëre nga xam na ni dalay métti dalay touché. waaw mooy li ma dal sama combat bi passé rek. waaw xam nga préparé ay weer mooy li ma ko waxee ñëw ba jour bu war a bëre. mu war na ñëw tey li nga waroon ci def ci làmb yëpp def nga ko entraînement nga nu mu waree ñëw indi lépp xam nga mu yàqu noonu loolu bokk na li ma gën a métti ci làmb beneen bi nag li may wax mooy waa làmb làmb instant bi dafa sooxe képp koo xamante ni yaa ngi yaakaar làmb wala ngay dundal làmb wala ngay dundee làmb rek xam nga ñu ngi lay woo pour nga ñëw jàpp ci te xam ne làmb yi su baaxee ñu ñëpp la baaxal su yàqu ñun ñëpp la yàqul waaw. daan gëstu star rek ak saarata ba léegi rek du ma tàyyi di ko waxaat ma ñëw biir CFA seet si fi naanaan nee naa naanaan yëpp laay seet si bàyyiwuma mbër bi bàyyiwuma fecckat bi bàyyiwuma woykat bi bàyyiwuma kenn maa ngi seeti ñëpp tey nag ma ñëw seet si woon Alioune Seye 2 ci biir CFA su ma nee CFA rek damay kontaan ndax parce que fii laa juddoo Alioune Seye yaroo fi màggee fi sama kër maam nekk na le Seydou Mbengue ak Jëlia kon man xam nga ni fii tey sama koñ laa ñëw waaw sama koñ laa ñëw mais Alioune Seye tey ma ñëwoon seet si la kontaan naa nag si seet si bi maa ngi lay béggewaat lu bëri doole ndax nee naa leen maa ngi ñëwaat si yeneen façon ak keneen ak keneen bàyyiwuma kenn Alioune Seye di la wax lan ngay tàggoo tey waaw li may tàggoo di leen santaat di leen gërëm rek wax dëgg yàlla encore une fois ndax déplacement bi ngeen def nii rafet na trop waaw di leen jaajëfal di leen ñaanal seen site bi yàlla dem ba nekk ay télé yi télé télé ci barke Seydina Ahmed di nuyu caméraman yi nga xamante ne wax dëgg yàlla waaw ay gentleman lañ ñu ngi leen di ziar bu baax yow tamit di la delloo ziar di sant képp koo xamante ni yaa ngi supporté Alioune Seye numéro 2 rek maa ngi lay fekk fa nga nekk ma jox la loxo di la nuyu di sant waa diaspora bi comme ni ma ko far di waxee rek képp ko xam ne yaa nga fa amuloo kayit yàlla na suñu borom yombal lépp ba nga am kayit ñi nga xamante ni ñu nga fa bëgg a ñibbisi yàlla na suñu borom kàttanal ñu ñibbisi ña fa nekk nag bëgg doole poos yàlla na suñu borom kàttanal ñoom doole poos ñibbisi nga xam ne ñu ngi ci lala hôpital yi suñu borom fëgg leen seen bopp yi ñu delluwaat société bi ñi nga xam ne ci kaso bi ñu ngi ci kaso bi suñu borom may leen tawféex ba ñu génn te bu ñu génn yàlla bu ñu defaat leen fa yóbbu di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sonn ci Alioune Seye numéro 2 rek maa ngi lay jaajëfal di la bëggee di kontaan a ndax si Alioune Seye nee naa leen gëstu stasi ak yeneen façon tey maa ngi si Alioune Seye suba maa ngi si keneen ak keneen nee naa li may ko limee woon rek muy fecc kat bi di woy kat beeg mbër beeg lépp bàyyiwuma kenn maa ngi kontaan si ñëpp dinaa seet si ñëpp te xam na ne Diassigui TV mi ngi ñëw dal seen kaw ñaaf